salaamaaleykum man la Mame Birame Sène nekk président ASC Diambougum du Niakhar ASC Diambougum dafa nekk benn association sportive et culturelle bu nekk dans la commune de Niakhar département de Fatick ci région Fatick dajale nag ay nit ay xale yu góor yu jigéen ay mag Nous nga xamantene ñoo bokk gis-gis muy activité yu bari muy sport culture des actions de développement luy agriculture avec la chaîne de valeur muy élevage muy éducation muy environnement muy petite enfance nekk daal association boo xam ne li ko soxal mooy faire émerger une nouvelle conscience citoyenne nu mu tekki nag que moo séeréer la jàm bugum je veux la paix mooy Jam laa bëgg que dañu xam ne balaa nga mën a am développement nga am jàmm bu jàmm amee rek di nga mën a euh, wuuti loo xam ne dina tax na suqali mu yëngu foofu bu baax waaye sosoo nag si wàllu football continue aussi di nekk si football bi may fàttali rek ne ren mooy suñu deux années deuxième année successive bi ñuy dem phase nationale puisque après avoir été champion au niveau communal départemental régional daaw dañu demoon représenter la région de Fatick en tant que champion régional pour une première participation nous demandons mais quart de finale le quart de finale nous partir au but Nous une participation honorable avec aussi un apport bu solo université du Navetan. Présente comme étant un modèle réussi ñu le lot avec toutes les ASU du Sénégal on cave nous ñu gis suñu parcours ci football bu daw bi ci phase nationale première participation yegg quart de finale suñu fair play ak suñu discipline mais aussi euh, suñu modèle de développement bi par rapport à association sportive et culturelle mën ren il faut ñu inviter l'aide compte tenu des performances et du modèle c'est vrai que invitation sax daf mais on s'est préparé on s'est dit ça c'est un défi que nous devons relever d'honorer honorer surtout nos autorités au niveau de l'ODECAV et de l'ORCAV et l'ONCAV mais honorer aussi toute la région de donc nous sommes ambassadeurs région bi région c'est la ak région globalement alors suñu parcours ren nag bu bilan bi premier match on a raté notre première sortie on avait dominé le match mais euh, wa mbok jom de gens Nous avons gagné par un but à zéro alors on s'est retrouvé avec vraiment nos joueurs avec un coach qui comprend aussi les enjeux de l'heure et le tactico koy Ousmane Diouf vraiment ñu waxtaan suñu biir ñu waxtaanee ne nag il nous faut relever le défi ñu dem au niveau de notre deuxième match on a gagné Manco de Saint-Louis qui est une grande équipe par 3 buts à un démb ñu waroon tase avec le grand Guigui de de Parcelles Assainies mu doon à domicile dans son stade et dans son quartier avec son public Il yalla aussi may ñu ndam nous gagné par un but à zéro. Lolo, nous donc sur les trois matchs on a eu deux victoires et une défaite sur les trois matchs on a encaissé deux buts mais nous avons aussi quatre buts du coup on se retrouve avec six points avec le Guigui, Bindon premier au niveau de la poule G qualifié 8 huitième de finale vraiment euh, di xaar huitième yooyu di préparer wu avec toute la sérénité pour que yàlla may ñu koy ñaan yàlla may ñu ndam huitième de finale yooyu. phase nationale nag dafa yombul dafa bëri ay charge euh, pour déplacement bi déjà pour hébergement bi restauration bi prise en charge joueurs yeeg staff yeeg lekk dafa bëri véritablement ay dépenses mais ñun euh, dañu loger fii à Dakar nous sommes euh, à Guédiawaye si structure euh, scolaire yi nga xamante ne moom waa ONCAV choisir pour association yi di ñëw foofu lañu loger donc ñun ñibbiwuñu sur fatigue di ñëw di mais dañu ñëw loger charge yi nag dafa bëri c'est un budget qui dépasse plus de 10 millions pour la phase nationale et c'est pas facile on n'est pas recouvert encore ce budget là mais on est parti avec les moyens du bord wax membres yi d'abord ils voulaient a ñu né ñu joxé véritablement benn ordre pour que les ku nekk membre jàmbugum mën a cotiser indi par rapport à ses moyens propres lim man ak ndax ñu boole ko boole ko mën a Nous ñëw participer ñu ko bu baax vraiment def si contribution yu am solo ñu di di bu baax si ndax dañu farlu si côté mu am aussi ay appui Nous jot nañ ko véritablement ay lettres d'appui commencé par le maire Makodou Sen, le maire de la commune de Niaha. nga xam ne joxe na son appui conséquent jàpp si mbir mi teg si maître Bassirou Ngom nga xam mom aussi andi na participation bu am solo jàppale ñu am le docteur Adama Konem suñu partenaire le bo xam vraiment jàpp na si bu baax a baax baax si contribution financière la zone 4 de Niakhar avec son président Ousmane Sen def ci aussi lu c'est un appui financier pour xamné Anna. nako ya mam Sen. au niveau aussi du département il y a le ministre Mataba, à travers euh, benn suñu ben, membre devrais-je dire PMD véritablement ñëw nañu def si lu am solo indi sa contribution encouragé ñu ne aussi su ngeen demee ba deuxième tour dinañ ñëwaat le ministre Matarba, ministre des sports nekk aussi un fils du département de la région andi na sa contribution am na aussi ay bonne volonté yoo xam le soutien n'est pas uniquement que financier mais soutien boo xamante ne da lay andi

dañuy jàppale bu baax moralement financièrement dans les conseils dans tout ce que nous sommes en train de faire mu def engouement bu am solo sentir population population de la région de la région de Fatick mu nekk aussi wax au niveau des des autorités qui gèrent le football mooy structure ODECAV ak ORCAV am nañ yaakaar aussi ah les autres vont réagir les autorités au niveau du département et de la région de Fatick am nañ yaakaar ne ñoom aussi andi seen contribution jàpp si mirmi puisque ay ambassadeurs lañu te le plus important c'est que c'est Fatick qui doit gagner. waaw suñu cadre bu mujj daal may vraiment di gërëm remercier tout le monde toute la population de la région de parce qu'on a reçu des appels de partout de la région euh, la commune de Nyahar, toute la population toutes les associations les jeunes les personnes de bonne volonté sans exception gërëm leen aussi à chaque fois da ngay véritablement Satan nous wa 24 pour nous Top sur li di remercier bu euh, le staff bi ñu le président de la commission sportive de l'association Mbaye le coach et le tactico Ousmane Diouf son équipe des joueurs ñi avons des ne ay jàmbaar vrai vraiment ay vrai de très bons ambassadeurs Nous xam ne ñu ngi def li leen pour huitième de finale nak ñu ngi xaar d'une manière officielle équipe bi ñu wara a dajal y a un calendrier qui a été fait mais mbir mi dessiné gul ba ñu xam exactement ñan la ak ban pool la ñuy croiser mais pour l'instant ñun euh, n'importe quelle équipe bi ñu am dal on s'organise ñaan yalla mu may ñu ndam ndax véritablement ñu mën honorer la région di lancer un appel à tout le monde ñu yokk ñaan yi yokk seen mën-mën ak lépp ndax li ñu mëbët pour la région yàlla moon ko def bi mu ñëw inscrire la région de Fatick dans véritablement l'histoire des des phases nationales ici à Dakar. calendrier bi nag buñ ko toppee normalement mercredi 24 la ñu war a jouer. buñ defee croisement yi dinañ xam ban équipe la ñuy am après lañ la mën a communiquer li ci des.